marhaban li kulli muhibbin li kitaabillahi subhanahu wa taala képp koo xamante ne fas yéene ngaa dund alquran wala bëgg alquran nu ngi lay dalal ci kër gi ndax ñooñu alquranul karim gépp ko bokk jotaay bii di asalafu ma alquran mag ñi nan lañ daan dundee ak alquranul karim ndax ñun dañoo bëgg aw ci seen yoon yoon gi nga xam ne moom la ñu jëloon ba am teddange waaye ba am ngërmaandeeg borom bi subhanahu wa taala nu fas yéene soobu ci boobee xalaba boobee binwaal kon dafay jaadu ñu xam seeni axbaar nit ñoo ñoo nekkoon ñan fan yi weesu yëpp ñu nekkoon ci di andi ay namaasij ak ay suwar ay taxawaay yoo xamante ne lenn ci mag ñi dégg alquranul karim yuuxu jooy ba mu yegg ci ñoom ñu daanu xam ci loolee la wey ba léegi ndax ñun ñu comparé suñu bopp xool fan lañu ñu toll ak alquranul karim fan lañu tollu ak alquran da ngay jàng alquran ba pare ñu ne no toj nga fi neexna subhanallah mag ñi du loolee lañ ci daan xool leneen lañ daan dégg ci alquran innahu kalamullah waxu yàlla bur bi subhanahu wa taala la yàlla moom mooy wax te yàlla lu mu digge dana ko def ndax lu mu digge mën na ko benn bés ki nga xam ne moom mooy mudar mudar rotna ci yenn ci téere yi ne dàqantale moom mu nekkoon abu abdillah mu nekkoon qariul basri mu mënoon jàng lool baatam neexoon lool mu jàng alquranul karim ci wetu ki nga xam ne mooy abdul wahid abdul wahid ibnu zayd rahimahuma rabbi muy jàng ba yegg ci waxu buur bi subhanahu wa taala wa andirhum yawma al azifa idil qulubu lada alxanaajiri kaadimin waar leen xaddirhum moytuloo leen bés bu jege si ba bés ba nga xam ne jege si na ba pare muy lan yowma alqiyaam mu ne ko idil qulubu jamono ja nga xamante ne bés ba su taxawee nit ñi dañuy tiit ba seen xol yi fa ñu nekk ca ron dënn ya dafay yéeg ba daal di leen xoj xol yi daal di leen fut ca kaw la dal xanaajiri kaadimin xol ya daal di yéeg ba ca put ya daal di fay taxaw ñoom ñu daal di fut la hawla wala quwwata illa billah ba nga xamante ne moom mudar jàng na ba yegg fii abu abdullah ki nga xam ne mooy abdul wahid ibnu zayd daa commencé yuuxu di yuuxu di yuuxu ba ñoom ña fa toogoon yépp ñu foog ne moom dafay dee tumma afaaqa ifaaqatan ba mu ximmali ko moom ba mu ximmali ko mu daa di yuuxu mu daa di laaj من كيف بالقلوب إذ ذاك وقد كظمت له الحناجر kadumat لا خول يدي مل سي جامانو جوجي nga xamantene wax deug fi yàlla ñëw na ba ci put ya daali fay taxaw ngir lan daali di tiit ñun fi ci aduna da ngay gis nit ko xamne ne titele da ngay gis xol bi di teuf teufé waye xol ba nga ci place am waye yowmal qiyam da ngay tiit ba xol bi buddeeku wutal ci sa put gi la hawla wala quwwata illa billah wallahi innahu alhaq mbok yi alquran dëgg lay wax mbokk yi alquran dëgg lay wax mbokk yàlla du waxantu mukk wallahi lu leen waay mën a wax ci diine ji ku leen mën a reetaanloo ci diine ji ku leen mën a comédiloo ci diine ji ku leen mën a wax bu yeboo ku tuuti moom moo tuuti yàlla tuutiwul wax ju matul waxama matut waaye waxu yàlla dafa mat wallahi xarfu boo gis ci alquran dëgg la dina am كلمة بوغيس تي القرآن لم وح دقل دينا أم لا يبوغيس تي القرآن دقل لم وح مموي لي أم بوكينا نرقل يلا إلا من أتى الله بقلب سليم خلق مچو تي بوكالي خلق مچو تي أقجامي رك مموي مچو يوم القيام من ثم غشي عليه بمو يجي ملايك لي من نان لنو يدف مدادي دانو خم مم عبد الواحد بن زيد مدادي دانو خم فحمل إلى أهله njabot gi daldi di ko yëkkati yobbu ko këram subhanallah hakada kanu yatasaalun mag ni lañu nekkon ñu nekkoon di laajante di laaj seen bop xitam di wet di ñaan yalla pour yalla musal len ci ayuk qiyam ndax ñom xam nañu ne arafu min haqq xam nañu ne li alquran di wax deug la wallahi lu len way Lulen wax lu len way wan la alquran wax mom moy am ku mu neex na nga wax rew mi ñeppay wax damay gis masale yu bari yiñ fi nekk di wuté di ko werante muy andi ay polémique ay ciow ak neexoon mu nekk masale yo xam ne fay delu ci alquran ñu ne aaya bi ni ni la ko diw gisé ni la ko diw diw gisé wala mu delu ci masailu qiraat ni la ko diw ni ni la ko diw jangé way ay masale yo xamante subhanallah soko ko ci mbeuru lamba, ba sax nga fekk mbeur ya di ko fa werante subhanallah alayna an nastaxila bi kitaabillah nañu jël alquran def ko suñu dund nañu tënku ci alquran nañu dugg ci xadaaiqu dikr nañu dugg ci zardey alquranul karim yi ñu tëju fa ne duñ fa génni ne yàlla rey ñu fii duñ fa génni nañu jël suñu temps def ko ci alquranul karim subaak ngoon ba bëccëg nii la mag ñi daan déggee alquranul karim kii di dar ba léegi dafa am benn bés muy jàngat alquranul karim ci wetu abdulwahid ibnu zayd muy jàng ba yegg surat al jaathiya mu yegg ci haada kitaabuna yantiqu alaykum bilxaq la <laughs> ilaha illa allah haada alquran bii de kitaabuna mooy suñu téere ñun borom bi subhanahu wa taala téere yàlla yantiqu alaykum bilxaq li mu leen di wax mooy dëgg li leen alquranul karim di wax moom mooy dëgg ba mu yeggee foofu mu ne inna kunna nastansixu ma kuntum taamaluun xoolal yowm alqiyam de hada kitabuna yantiqu alaykum bilxaq nga dem ba taxaw yowm alqiyam yàlla ne damaa santoon ay malaika ñu may recopier di ma bindal ma kuntum taamaluun lépp lu ngeen mos a jëf wala ngeen wax ko di nga fekk kiraaman katibin ay malaika yoo xamante ne bindanuñ ko yaalamuuna ma tafaaluun xam nanu li ngeen di def raqibun ak atid lépp la bind bi nga xamante ne moom mu dar muy abu abdallah jàng na ba yegg fii téere borom bi di wax naan amut lenn lu nit ki di def lu dul nem yàlla bind lu na ko malaayika yi bind nañ ko bi mu yeggee foofu rek fa baka kan moo jooy abdul wahid ibnu zayd mu daadi jooy yuuxu yuuxu thumma gushiya alay moom mu daanu daan daanu xëm thumma afaaq ba mu ximmee ba mu ximmali ko nag ca la daa di yuuxu mu ne wa izzatuka wa jalaaluk mu ne wa izzatuk laa asaytuka jahdi abada yàlla giñ naa ci sag teddange giñ naa ci sag màgga nge ne dootuma la moyati mukk yow yàlla buur bi subhanahu wa taala dinaa góorgóorlu ba dootuma la moy ci aduna fa ayyidni bi tawfiqik ala taatik yàlla dimbali ma ci sag dëppale ma mën laa topp yow yàlla buur bi subhanahu wa taala xoolal benn laay alquran bii la dégg mu daal di daanu xëm ba mu ximmalikoo mu waat ci yàlla ne ko yàlla feek maa ngi ànd ak sama sago dootuma la moy mukk yàlla yombalal ma ma mën laa topp dootuma la moy kan ci ñun mooy jël décision boobu bi mu déggee laaye bii hada kitaabuna nam ko déggee laa leen koy jottali hada kitaabuna yantiqu alaykum bilhaq alquran téere borom bi subhanahu wa taala yàlla nee na inna kunna nastansixu ma kuntum taamaloon bu yowm alqiyaame nii la ko yàlla di waxee yebaloon naa ay malaika ñu doon ma binda lépp loo xamante moom ngeen doon def mag mi daal di yuuxu jaylante ak boromam ne fekk mu ngi ànd xelam dootul mooy yàlla buur bi subhanahu wa taala mukk kon lii moo nekkoon seenu jotaayu asalafu ma alquran tayji ngeen amé won ko ci kër gi di la maison du coran ma kana min sawabin fa min arrahmani wa ma kana min khata'in fa min nuqsaan salla alilahu ala annabiyi wa alihi ma labba mulabbin aw tahallala muhrimu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh